413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. d'accord naa ci benn côté boo xam ne Sonko tey liñ ñëw na ko signeel non violence mu ne leen ma bañ loolu am na fu mu jiitoo su fekkee dëgg rek lañuy wax. fekkee ne sëriñ si dañ fee nekkal lislaam nekkal fi dëgg te dëgg neex leen ñu war koo wax lañ waroon a wax ci boppam ñun de man de Macky laa àndal waaye dañ ko waroon a dem na ko arrêteel sa nervi yi parce que li nga xam ne mu ngi a jàkk ñu koy gis sëriñ si ñëppay liir ñëppay toog di xool seen énergie gis nga man balaa maa nelaw lépp lu xew ci Sénégal ak lu xew bitim réew dama koy xool xam li xew ci réew mi actualité réew mi dama koy xam kon Sonko su waxee ne moo bañ am na ci droit ndax ñun sëriñ si li ñu waroon a def ne ko Macky ñii nervi yi dañ leen a war a jàpp sax passeegul dañ dañ leen a war a dem jàpp ba pare boobaa ñu xam ne ñii indi violence yi ñu teg leen ci yoon boobaa suñ ko waxee ne ko nañ ko teg ci yoon boobaa ma nangu waaye nag vraiment foofu dañoo juum te war nañoo génn ñun tamit di wax dëgg te xam ne ëllëg àddina neex na mais billaahi wallaahi tallaahi ku yaakaar waxu yàlla ji alquran ji ay waxu kese la barke rasulaay dangay nax sa bopp soo laajtee sa maam gisoo ko soo laajtee sa baay gisoo ko ku gëm dee rek war ngaa gëm alquran te dëgg dëgg yàgg yàgg dañuy fekk àllaaxira kon lii moo ma jotaleeg Pape Demba bi tey lii mooy suñu problème bi te lii rek la woon man tamit ma romb gis ne man damaa jàppale nit ba mu foor ñi dem bëgguma liquider mhm. man tamit ma xam ne li ñuy def ma wane sama bopp te récciwuma ko mhm. man Médina laa dëkk te fu mu nekk nii dañ ma tooñ mhm. te ñi ma tooñ suñ ma baaluut jusqu'à après du ma wax léegi ndax élection yi des na ci kanam nee nee naa leen man awma lu may ragal dee tëdd ci kaso daraja juy wàcc loolu yëpp sama yoon nekku ci man dund naa ba yem nii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 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu góor ngóoraa tax